bu ñaar téeméer ak juróom fukki personnalité ñoo dal di bokk eh, ci collectif bi nga xam ne dafay xeex àq ak yelleefu soxna yi ñoom nag ñu dal di xëy xaatim ab tribune di ñaawlu lim bu néew bi nga xam ne ñoom soxna yooyee am nañu ko ci biir gouvernement bi nga xam ne njiitum réew mi Bassirou Diomaye jaxaar Faye moo ko dal di taxawal ñoom ñoo ñi nga xam ne ci limu askan bi téeméer boo jël yegg nañ ci ñeent fukk ak juróom-ñeent yu toftal ya ndax nag ci ñaar fukki ministre ak juróom juróomi secrétaire d'État ak ñeenti membre cabinet wu njiitu réew mi mu tolloog fanweer ak ñeenti post ñeenti soxna rek lañu ca nemmeeku lu ni mel ñoom signataires yi jàpp nañu ne dafay nasaxal li nga xam ne booloo rek moo ko mën a andi te amul benn secteur boo xam ne jàpp nañu ne jigéen ñi nekkuñu fa te ànd ak xarañte mën-mën ak dogu loolee moo tax bu ñu ñaawloo lim bu ndaw bi ñu nemmeeku ci soxna yi boobu le collectif tamit ne li ñu jëlee ministère de la femme de la famille et de la protection des enfants dal di koy duppee ministère de la famille et des solidarités deltu ginnaaw la ndax nag cër gi ñu cërale woon soxna yi ak xale yi da doon wane rek ne politique publique yi war naa mën a gën a fexe ñoŋal seen nekkin ci wàllu koom njàng meeg njàngale mi wàllu wérgu yaram wàllu politique ba ci sax wàllu suuf geeg ñu ni mel ñoom nag ñu dal di bëgg rek fësal tamit ci bile kayit ne naam soxna yi dañu amal taxawaay bu am solo ci biir famille yi waaye tamit noonee la ñu mënee leneen ndax nag bëgg leen a rek teg ci kër ga dafay mel ni rek da ngay wàññi seen àq ak yelleef loolee moo tax ñoom ñu bind bi la tribune di sàkku ñu dal di indi ay saafara ci yile erreur fexe nag dal di tabb ay soxna ci direction nationale yi ak instance administrative yi bu weesoo loolu Aliou ak i ñoñam ñu ngi sàkku ñu gën a ñoŋal cellule genre yi nga xam ne am na ci yenn daluwaayu jëwriñ nga xam ne dafay tax ñu mën a jëmmal stratégie nationale buy tax ñu tollale stratégie nationale d'équité et d'égalité de genre dal di koy lëkkale ak waa direction bi nga xam ne ñoo yor équité ak égalité de genre ak it programme bi nga xam ne dafay gën a ñoŋal wàllu stratégie équité ak égalité de genre